xool yëpp sëngéem sëriñ Pam Malick Sy le prince héritier de Cheikh Seydi Aboubacar Sy mu tuddee ko ki mu gën a fonk ci àddinaam muy Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy àddina bépp jooy la sëngéem ndax sa mbaax ndax sa yiw ndax ni nga bëgg woon sa baay bu tedd ba sëriñ Babacar Sy fonke ko sa maam ji Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy turandoo àddina bépp ngi lay ñaanal tabaarakallaahu sa dem gi bett na waaye sunu borom nag du def lu ñaaw waaye dina def lu metti waaye Seydi El Hadji Malick Sy moo nu yar ci diine lislaam ba bu njabootam wuy jee suñu boroom suñu xel yëpp dellu ci suñu boroom tabaarakallaahu sunu pas-pas ñu taalibe yi day gën a yokk duñu du duñu tàyyi du duñu bàyyi ngir yàlla ak ni nu sama am Seydil Haaji Malick ak sa baay bu tedd ba Cheikh Seyd Aboubacar si yare tabaarakalla keroog bi Serigne Babacar si faatoo Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum dañu woon nañ ñëpp wax alhamdulilahi rabbil alamin yow si Malick nga wax ni bàmmee lu mu diis diis boo ko dellee ci bàmmeelu yonent bi moo woyof ñu ngi lay ñaanal yàlla na Serigne Babacar si ak sa maam Seydil Haaji Malick teeru la ci barke yonent bi